auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabiil karim sayidina wa maulana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sabi ritwaani wa tamkin bokk jullit yi bokk taalibe yi gannaaw ba ñu leen nuyoo seen bokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëñ Sowaa Masamba di soppee Serigne Mbacke moom maam soxna loo Diop Taïf tey ànd ak sëñ Mountakha ci liggéeyal Serigne Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi téer tey roy Cheikh ci ak dëgg ñëpp jàmm di ko ñaanal réewum Sénégal di ko ñaanal addina bi di ko ñaanal jullit yi di ko ñaanal it kilifa yi diine yi te di ci jiital sëñ Mountakha Mbacke mu yàgg fi téer lool di siyaare bu baax Serigne Ahmadul Mokhtar xalifab Cheikh Mamadul Moustapha di ñaanal it xalifa sëriñ Mbàkke Madina sëriñ Cheikh bu Mbaali di ñaanal it xalifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma sëriñ Abdourahmane Mbàkke ak rakkam yëpp waaye di ñaanal it xalifa sëriñ Aliyu Mbàkke sëriñ Cheikh Aliyu ak ak di ñaanal it xalifa sëriñ Mahmadan Xariloo waaye di ñaanal it xalifa sëriñ Saliou Mbàkke muy sëriñ Cheikh Sikap ak i rakkam waaye di ñaanal it xalifab sëñ Ibrahima Mbàkke ak i rakkam yëpp waaye di ñaanal it xalifab Cheikh Mamadou Fadal muy sëñ Moustapha Danki ak i rakkam waaye di ñaanal it xalifab sëñ Xaadim Mbàkke moom Cheikh Amadou Moustapha ak i rakkam yëpp ak mboolem njabootu Cheikh Amadou Moustapha bu jigéen gi di am mbégte rek di kaat ci nañu ko daan defee rek ci Hinde Sikri Salihina Tansilu Rahma jamono boo xamee ne bis bi dem nañ ba yàlla dogal nu fekke ko rek ñu daal ci barkeelu ci jéem a fàttali ko Cheikh Amadou Moustapha ci taarix bi nga xam ne am na ko muy taarix bu riche ci wet yëpp ci wetu juddoom wetu famem wetu njàngam wetu taalibeem wetu xalifaam ba nii mu wujje sunu borom taxawaay bu am solo boobu des ko war di fàttali mboolem koo xam ne si aju nga ci yoon wi ngir ñu mën koo def ab ab leçon di ko jàng booba sunu dox yi daal di mën a jub ndax loolu mooy tax liñ bëgg ci sëñ Tuubaa ñu mën koo am Cheikh Mamadou Sa moomu nag ci taarix yàgg nañ koo taarixal waaye ci tënk rek taarix bu gàtt lañ koy defal ci aw askanam ndax nit ñi xam kii fi mu bokk ba xam ne naam lim def def na lam war a def ci jëfi boppam waaye nag bokk ci askan bu baax dana tax loola nga man ko mu mel ne boo ci tuddee askanu maam maaram yi nga xam ne ci la waajuram bu góor bokk tudd ci kokki tudd ci saaxewar Fatma tudd ci it ndaam tuuti rek boo ko defee boo ko ubbee waxtaan wi nit ñi danañ xam Cheikh Mamadou Moustapha bu baax kon ñu tàmbalee ci ki nga xam ne rek mooy waajuram mu góor boo ko dalee ci maam Habibullahi mu mag ma mi nga xam ne moo jur maam maharam maam maaram am caatam mu tuddee ko ki nga xam ne mooy waajuram woowee muy maam Abibullahi bi jur sëriñ maam Mor Anta Sali mi nga xam ne moom moo jur ki nga xam ne moom la ñuy wax Seexul Xaddiim ak ñam ko bokkal ñëpp sëriñ maam Mor mi bokkal lépp waaye ak maam Thierno ak sëriñ maam Cheikh Anta ak sëriñ Balla Coro sëñ Masamba ak sëñ Afia ak ñañ ko bokkal ñëpp waaye boo delloo ci maam ma it moo jur ax Ahmadou Soxna Bousso Ahmadou Soxna Bousso moom mi moo jur Soxna Asta Waalo soxna Suwaalo moo jur sëñ Bousso bi soxna jaara soxna jaara moom mi moo jur seexul xadim waaye boo dir siwaatee it ci maam maaram moo jur Cerno Fari Mate mi jur Xari Mbàkke ak Mati Mbàkke Mati moo jur maam Ousmane si mi jur maam Alaaji Malick si Xari Mbàkke moo jur Ngaj Ñang mi jur soxna Safiyatu Ñang mi jur ki nga xamante ne si euh, mooy maam Abdoul da baax kon loolu mooy li nga xam ne mooy mbokku maam maaram gi ak nañ ko bokkal ñépp boo dikkee ci mbokku ndaam gi it boo ne Ali Sene ba moom mooy ki nga xamante ne si moo yàlla xuja kumba yàlla xuja kumba moomee moo dem kër saa xewar Fatma am ak ki nga xamante ne si mooy Aminta yàlla ñoom ñaar la fa am ba leen fa amee it Ahmadou Yàlla gis ngeen ne moo yoroon ku ñuy wax soxna mbiru jang mbiru jang moomee moo jur yàlla mberu ak roqaya mbiru yàlla mbiru moo jur soxna xari jang Diop ñu jur soxna Faatumatu maam ñu jur sëriñ Basiru waaye tamit ki nga xam na roqaya mbiru moom moo jur soxna waccit mi jur soxna Fatma Cubu mi jur sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ñooñu ñooy waa kër Ahmadou Yàlla boo dikkee ci amante yàlla mi mbokkal ndey ak baay nag moo dem kër sëñ kokki njaga isa ba demee mu am fa ka ñuy wax Samba Aminta Samba Aminta moomee moo jur ki nga xam ne moom lañuy wax soxna Penda Buyo ci roqa yaxu ja kumba mi nga xam ne moom la yoroon daat cay am Penda Buyo Penda Buyo ñu jox ko sëñ Ibrahima Mbacke Kajoor moo daal ci am ki nga xam ne mooy sëñ Omar Mbacke Gelongal ak sëñ Omar Fall Mbacke ñooña pend bu yee ma leen jur fàtte xuj kumba mi bokk ak Mor xuj kumba ndey baay moo leen jur ca kër Samba Amint boo ñëwee ba tey ci xari maam Diop moom it soxna Aminta yàlla moo ko jur Aminta yàlla moom mii jur nag moo jur soxna xari maam soxna dem kër Ahmadou Ndaam Ndaat Jaane am fa maam yaaba maam yaaba moom it amaat doom tudde ko yaayam muy xari maam xari maam moom moom lañ joxoon fi Ahmadou Moustapha mu am ci sëñ Ahmadou Mbàkke ak ki nga xam ne mooy sëñ Abdou Salaam ak ki nga ne mooy sëñ Aliou Mbàkke ba tey it soxna xari maam moomee ba mu jógee kër Ahmadou Ndaam ndaat jaane jooju dafa dikk kër tafsir maxtaar bintaloo moom dikkee moom fa soxna amintaloo mu jur Cheikh Mamadou Moustapha waaye ba tey aminta yàlla moomu moo jur pend bu yo mi nga xam ne moo jur bintu jaxate ak marema bintu jaxate moom yi moo dem fi nga xamante ne si mooy jaxate njaxate kër xaadima jaxate kala am fa soxna mbàkke jaxate mu dem Touré am fa ki nga xam ne moom la ñuy wax Serigne Hadi Touré waaye ba tey aminte yàlla moom yi moo jur Marema Matee Marema moo jur Maxtaar Marema Maxtaar Marema moom yi moo jur ki nga xam ne moom la ñuy wax Serigne Madiba Sylla ba tey aminte yàlla moom yi moo jur ku ñu wax Ndaak Ndaak moom yi moo dem kër Mor Khoudia Kumba am fa gàdda Gadda Ndaak Masamba Gadda Ndaak nag moo jur ma Masamba ak sëñ Mor Jàndam xëri Masamba moo jur soxna Sooda Joob mi jur xalifab Serigne Moustapha sëñ Modou Moustapha bi muy sëñ Ahmadou Mokhtar sëñ Mor Jàndam moo jur maam Soxna Lo Diop mi jur sëriñ Mbàkke Mouhamad waaye nag yanda buyo moom yi nga xam ne moo jur bint jaxate moom yi nga xam ne mooy maam yi sëñ Adi Touré bi mu jógee njaxate dafa dem fa nga xamante ne si moom la ñu wax ura madiyu kon ahmadou madiyu ba mu demee it mu daat fay am pend bu yo ba mu am fa ibra pend bu yo ibra pend bu yo ba fa am Ibra Penda Buya moom yi jël Roqaya Xujja Kumba mi bokk Sëriñ Mor Xujja Kumba ndey ak baay am ca ñaar saajo Ba ak Penda Buya Ba mi mu tuddee ndeyam Penda Buya Ba moom bi sëñ Touba soxlawaatee ci néegu sey bi moom lañ ko jox mu am ci soxna Fatim Mbàkke bi mu daataan dem ci géej gi mu jox ko sëñ Mamoor Jaara mu jor sëñ Cheikh Penda ak Magat ak ñan bokkal soxna Fatim Mbàkke moomu Sëriñ Touba am ci Penda Buya Ba moom yi moom lañ joxoon sëñ Amar sëñ Amar Mbacke gelongal moo jur sëñ Modou Mbacke gelongal waaye boo demee ci aminta yàlla moom yi ñoo ñi mu jur am na ñuñ bokkal baay muy mayëb mayëb moomu moo jur soxna Awa Balla mu jur sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Modou Awa Balla waaye ba tey moo jur soxna Issa Diop soxna Faati Issa Diop mu jur maam Thierno ak soxna Aminta Mbacke loola nekk nag lu yaatu loo xam ne moom lañ doon taarixal lii nga xamante ne si mooy waxtaan yi nga xam ne man nar nañ koo sumb jëmee ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim Cheikh Mouhamadul Moustapha moom mi nag mi ngi ganee jamono dëkk bu ñuy wax Darou Salaam ci la 17 septembre 1888 bi mu ganee jamono fekk na Serigne Touba génnoon Darou Salaam dem doon wëri Touba. diggante boobu mu nekkee nag Touba mbooloo mu xamuñu fu mu nekk ba takkatoo nekk fukki nit ak juróom-benn dem doon ko wëri ci diggante boobu wax nañ ne sëñ Maam Moor magam biñ gisul sëñ Touba moom moo ko tëdd jël tudde ko boppam jamono bi ñu waree sëñ Touba ba gis ko nag la na ko ah, diir bi nga nekk fii te xamuñu ci foo nekk day soxna sa muy soxna Amintu ab jant fenk na ci moom waaye ñàkk gi ñu la ñàkk a gis ma tudde ko sama bopp mu ne ko yow de loo def yàlla du ko dindi waaye nag dama nisir ak xir ci lépp lu ma am tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma bëgg nga abal ma tur bi ma tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di koy jël tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Cheikh Mamadou Moustapha al Karim waaye tur we mu ko abdit fay na ko ndax soxna Aminta Mbàkke moomu bokk ak maam Thierno Ndeye ak Baye bi mu ñëwee kër sëñ Dame Abdourahmane Lo dafay am ku ñuy wax soxna Aminta Lo ko joxe Cheikh Mamadou Moustapha ci la soxna Mariama bintu Moustapha ñu jox ko sëñ Bay Faaloo mu am ci sëñ Cheikh Mariamu Njaay waaye ka ca topp muy sëñ Mbàkke Madina moomu sëriñ Mamor Jaara la ko sëriñ Modou Moustapha fayawaat tur xam ne moo njëkkoon ci ab noppam sëñ Modou Moustapha bi matee dal jàng sëñ Tuubaa ko dalal jàng foofu ci jumaa ji moo mbokkam ma sëñ Fallu ak kañe wax sëriñ Omar Mbacke Gelongal moo leen fa jiitoo juróom benn weer ci gannaaw ba nga xamee ne waajuram jël na ko teg ko ci fas boole kook addiya waajuram bu jigéen jaayi takkaayam ñu boole ca mu ñëw jox ko sëñ Touba jox ko ko addiya mooy Mbacke Mbacke bi fi jiitu ci ña nga xam ne moo leen mag bi nga xamee ne nii <clears throat> yàlla dogal na ñu nekk foofu ci néeg sëñ Touba bi sëñ Omar Mbacke di ko taalalub taal ak di ko rootali satala gi ak di ko lalal sajaada gi benn bis wax nañ ne soxna Awa Bousso xëy si na fa indi fa laax bi mu ko indee mu laaj ko ana fara ya mu ne ko ña fa mu ne ko demal nga woo leen moom sëñ Mamadou Moustapha ak ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Fadal bi mu dikkee fekk nañ ko sëñ Omar Mbacke gelongal bi mu dikkee mu ne ko nuyoo la ñii ñu nuyoo mu ne ko xam ngeen xam nga kii Modou Moustapha mu daal di ree mu ne ko kii day yéen bokk jenn ndey ndax seeni ndey a bokk kon sa mag la ci wetuk ndey sa mag la it sa baay la ci sa wetu baay fali lu xam nga kii lu ngeen bokk mu daal di sëggree mu ne ko kii sa nijaay la waaye nag sa baay la ci sama gat daal di jël laax boobee leen soxna awa bu sa indiloon ne leen acce xéewlu leen daa kenn ku ne moo la raxasal sab loxo ba nga àgg mu daal di sukk daal di barkeelu ne acce sukk leen lekk daal di jëm àndu ba ca kanam mu daal di fay bi ñu lekkee ba noppi sëñ lu wax ko ne ko bàyyi gan bi danoo bëgg nga wax dem wax sunu baay mu ñëw jël ndam li sëñ Omar Mbacke gelongal bi mu demee ca sëñ Touba ne ko baay saa baay gone yi nee nañ nga jëw jël ndam li mu daan ne ko yow kon gone yi dañ lay yónnee daal di jàpp ca loxo ba waaxu ba ci ñoom ne leen bis naka tey bu leen ko yónnee te kii seen kilifa ne ko loolu yi nga ma wooyee na xam nga lu mu doona mu ne cell mu ne ko maag yow moom i ñoo bokk waaye yow loolu yi nga ci ñii bi ñu jógee ñoom ñaar sëñ Touba yabal leen ñu war a delluwaat sëñ Omar Mbacke jóg taxaw di leen xool ndax mënta dem te sëñ bi jox ko ndigal sëñ bi xool ko ne ko da ngaa bëgg ànd ak ñoom moo daal di mu boole seen loxo yi ne ko xàndalinte bu leen tàggoo xàndalinte bu leen tàggoo xàndalinte bu leen tàggoo kere biñ matee dal jàng wax nañ ne fii kër sëñ sooy bu Mbacke gi nekk fële sëñ Touba moo leen dalal jàng moo leen tàmbalil baasin miim bañ àgg ci suratu yaasin te keroog ëlluway xànjar la leen jox kenn ko ne mu bind la ci bind waaye laata loolu mun leen ndax da ngeen nangoo jàng yàlla def ci seenum xel ñu ne ko waaw danañ nangoo jàng kay mu ne bu ngeen ko nangoo jàng de lu ngeen bëgg danaa leen ko defal àddina ak àllaaxira ndax ci yéen ci jàng rek liñ leen def defloo seen biir lu ngeen ci xamul nag mbokk dana ko dimbalee morom ja danaa def ci yéen gaaw gee moo ak bañ gee fàtte kooku man maa ko warul mu téye leen kër sañ sooy bu di leen jàngal ba àgg ci suratu Yaasin bi muy dem ci géej gi mu maam Thierno jël sëñ Massamba jox ko jëlit ki nga xamante ne sii mooy sëñ moo roqee bu sa jox waaye jël sëñ Omar Mbàkke geloog nga jox ko ne ko yóbbu leen ndam boo demee ci ndam Abdourahman Lo mu mottali leen seen jàng mi daal di ne ñii kat ñaar ñii damaa bëgg a ànd ak ñoom ci tukki bii mooy bëgg def fële ci Jolof ci ñeenti weer yi ma fay def mu yóbbaale sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou ba mu àggee mu nekk fa ba ñeenti weer yi mag mu war a dem liggéey li boromam ci bisu samedi boobu mu fa doon génne waaye la ko jiitu daf leen a jël teg leen ci loxol maam Thierno ne ko na ngay leen yóbbu ci Touba boo demee nga yar leen fa jàngal leen su manoo su mënewul nag fépp foo ko yàlla tudd neex na ma bi yàlla dogalee sëñ Touba tàggook ñoom ba ñaanal leen dénk leen yàlla dénk leen yontu dénk leen maam Thierno maam Thierno bi mu njëkkee dafa daal di jubal si Touba bëgg fee dëkk waaye tubaab yi dañ ko ko tere mu daal di àndu dem ba Mbàkke tubaab yi ne ko eh, waa ne ko duñ dëkk yow ndax bañ li gaar sëñ bi gaar leen ñoom mu dem ba ca sawu Mbàkke mu dëkk fa ci siir corsaas bu metti boo xam ne jafe-jafe dab na ko fa ak njabootu Sëñ Tuubaa gi waaye ndénkaan loolu jar na taxaw ab seetlu ngir ñu mën koo roye maam Cerno bi yàlla dogalee ñu nekk fa ab xiif gaar na leen fa jàngoro peste gaar na leen fa ba am ci sax ñenn ci mbokk yi ñu fa wàcc bañ denc leen foofa waaye jamono jooje maam na xaw naa am tuuti tiitaange ak fonk gi gi mu fonk ndigalal sëñ bi te bëgg na bu sëñ bii dikk lim ko digaloon mu fekk ko doonte dogal suñ borom la it moo wàcc ci ñoom bi peste bi ñu ne dal sëñ Modou Moustapha ba sonal ko dal sëñ Fallu sonal ko dal sëñ Mamadou Lamine Baara ba sonal ko maam Thierno taxaw na jàpp julli ñaari rakka ñaan ci yàlla daan ne sëñ Touba day bu naree dir si ci dëkk bi te fekk fi jabootam gii ma jël sama bakkanu waajur wii di soxna Fatou Issa Diop ak bakkanu sëñ Modou Awa Balla ak bakkanu sëñ Cheikh Awa Balla loolu maam na ñaan na ko bi bisub keroog wax nañ ne it ci façon wax waxtaan moom mën a wax ak sëñ wax na ko ne su Moustapha mii di dafa wéradi ak Mouhamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Baara ma bëgg nag nga ñaanal leen waaye wax nañ ne ca na ko sëñ Touba mën a tontoo ba mu jotee tontu la dana ko ba ma leen juree ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad laa wàccoog ñoom te man damaa jaayante suñ borom lépp lu yàlla dogal neex na ma yàlla dogal Cheikh Mamadou Moussa wér Cheikh Mamadou Fadal wér sëñ Baara xaw caa dese tuuti te làmmiñ ma xaw a taq waaye sëñ tubaat dénk ko ne ko Baara moom yi nag lépp loo xamante ne si yéene nga ko koy defal ci wàllu njàng bu leen ko ci gëtan ci dara ndax koo xam ne xam na fa laaya fa laaya tàmbalee laata muy wàcc xam la muy tekk kooku lu ngeen ko koy lu ngeen koy jàngal da ngeen koy wan ba mu gis ko rek waaye xam na lépp yàlla dogal mu daal di fay jóge nekk fa nekk fa nekk fa xiif ba leen fi dab sëñ ma ndumbe mi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa dénk ko ko na ngay liggéey di indi ci daara ji ñu mën ko taxawu daara ji jamono joojee am benn e, kilifa gu amoon ñaari sàq ci Mbàkke Bawol yooyu yàgg na fa ba nawet bi di ko fa waaj a fekkaat mu déclaré nen da koy jaay ci lu toll ci ñetti téeméer jàpp juróomi téeméer ñu ñëw wax ko maam Thierno maam Thierno naa man de bëgg naa ko waaye laajal leen ma ko ba xam lu ma koy jaayee ñu ñu dem na ko nee na ñaata nga koy jaayee mun leen ñetti téeméer wala juróom léblewul nag serxewul mayewul bu amul xaalis du ma ko ko jaay bin bi mu dikkee ba wax ko maam Thierno wax ko njëg gi nga xam ne moom la koy jaayee waaye yàlla dogal boobu yoru ko ndax jafe-jafe ci bis boobu la ko sëñ Mandoumbe ma ñëwee siyaare ko lu toll noonee mu dem jënd ca sàq ya daal bu fekkee am mbay a koy maye naa ko ci yàlla duutuma manqué dara gis nga diggam ak tubaab yeeg prisonniers yi jàppoon ci mbay moom fa bayoon te prisonniers yi demoon ba xiif tubaab bi ñëw di ko ko lef mu lebal ko ñu daal di dundal ñooñam àggoon na fi ci tumuranke amuñu woon fu dëkk néeg amuñu ko woon am sàq la daan lay lali basan ci biir dugal leen ci biir moom mu lal ak basan tëdd ci bitti moom maam Cerno loolu nag ci la nekk ba yàlla dogal mu jël leen indi leen ci daara sëñ Abdourahmane Lo ñu daal di fay tàmbali mottali seen alxuraan bu fukki ati sëñ moo Modou Moustapha ci la wattu alxuraan ci la ko bind ba mbind ma fekk na Serigne Touba Gabon ak Kamilu Cheikh Mamadou Mous Cheikh Mamadou Fadal ak ñeneen ña nga xam ne ñoom la fa bokkoon nekk moo tax ñu tuddee ko Kamal ndax gaaw gaaman foofa it la tàmbalee jàng xam-xam sëñ maam Mor Jaara mi bokk ak waajuram lépp jàngal na ko fa xam-xam waaye sëriñ maam na it jàngal na ko fa xam-xam ca loola la nekk ba Serigne Touba ñibbisi ba ñëw Dakar wàcci Ndar bi mu jàll si Sanosi ba ni mu fa jógee ñëw Darou Salaam ba ni mu fa jógee ñëw Ndaam jóge fa ñëw Darou Halimal Xabira mu woolu leen ba ñëw mu natt seen alxuraan mu rafet lool mu natt seen xam-xam mu rafet lool. juróom benn weer jàpp juróom ñaari weer yi nga xam ne nekk na ko nag Darou Minane mu sësale leen ci wetam nag tàmbale di def ci ñoom ab yar ba ni fi jógee dem gànnaar ba muy dem gànnaar it daf leen a yóbbaale. bañ demee it mu boole leen xariti naari gànnaaram yi ñu leen di jàngal ani xam-xam yi nga xam ne amagul woon ci réew mi muy xil mu tajwid ak maxaari jal xuruf wax nañ ne foofa yenn saa yi sëñ Tuubaa woo leen ci benn barab ubbi ubbi genn kees duy koy téere ba mu fees ne leen téere yii de lafa ndeyjoor wu ne ba ci lafa càmmoñ wi laa bëgg araf bu ne seen bët bi teg tegu ci gaaw gee mokkal ak bañ gee fàtti fàtte maa ko warlu yéen woo tax sëñ Moussa Ka naan baa ngi leen tarbiye fii fi Sarsara eh, fi Sarsara ak i jaar-jaar ya ni waa Lansar ba ñu jeexalee téere yi foofa nag foofa lañ tàmbali seenug laxasaay sëñ Modou Moustapha fesoon ci lool jafe-jafe yi sëñ bi doon dund gànnaar ak déplacement yëpp sëñ Modou Moustapha àndoon na bi ko doon tubaab yi doon liggéeyloo muy curi yeeg yooyu yëpp sëñ Modou Moustapha ci la bokkoon di takk ndigg li di daw waaye seenu tarbiya mi ngi mate Jolof bi sëñ Touba ñibbisee Jolof nag diir bi muy nekk ci yéen dafaa nekk ak ñoom foofa wax nañ ne sëñ Modou Moustapha dafa daan sëqal bopp bi takk digg li di daw ci service sëñ bi nga xam ne ku ko xamul woon boo dikkee doo xam ne kii doomi sëñ bi la ba benn bi sëñ Touba woo ko ba mu ñëw ne ko loo jublu ci lii mu ne ko bëgg nuru teelu bi mu ne ko yow ci sunna lañ la doxloo kon xam naa ne incha allah foofu la ñuy taxaw ñëw ci deuxième xaaj bi su ko defee ñëw mën cee xuus ba nii mu ko indee Touba